Adama combat baa de wuro wa dem na këng waxi mbaj dem nañ taali dagg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb kii di Eumeu Sène Junior fekk naa ko géejawaay dem nañ Jurbel ci këram kii di Kalma Ndour fekk naa ko Kër Massar dem nañ Mar Fafaxo dëkkam dégg ngeen li nga xamante ne jot na ko wax ci adversaire bi kon ñoom ñaar ku ci nekk wax na xas jox sa morom te wolof moo ne bu jëf taxawee wax day tuxu fi mu toll nii wax tuxu na ndax ñoom ñaar dañoo war a jëflante mbaxam xeex dina am ci bëre bi ñu ngi xool ndaxam bëre dina am ñu ngi xool en tout cas lu mën a xew mooy. ñu ngi xool fu wànnante di mujjee ki bëtam ñu ngi xool fu di mujjee ki gëtam arbitre bi woo na leen état mbëri noo ko gisee ah bàyyi ji combat bi nag nekk na kombaa boo xamante ni nii ñoom ñaa ku ci nekk sa yoon génn mën na cee nekk ndax kii di Eumeu Sène combat am day day day metti te day yàgg te day day am xeex day am bëre waaye kii di Kalmu Ndour nag bàyyi dafa nekk ci ginnaaw ndaanaan nekk ci ginnaaw Boy Niang te fépp fu Boy Niang yegg xelam day nekk ci mu nekk ci ginnaawam ndax boo xoolee képp koo xamante ne day ñëw bëgg a dëkk Boy Niang moom mi kalmu du day ñëw tàllal ko ay loxo ne kaa ñu bëre kon nag am na leen loo xamante ni waa Pikine sas nañ ko ko tey ndax boo xoolee waa Pikine yëpp tey bu ñu ñëwee fii ci stade bi grâce à moom la kon tey war naa teg bakkanam rayante waaye nag Eumeu seen dafa naqadee bëreel ndax ni nga koy ni mu toll doole ji na noonu te diis gi mu diis teew koo bëre teew koo xeex waaye nag Baye Djily combat la combat bu mag a ngi ni Baye Djily. seen dugg ci dóor mu daal. déedéet. mënul ci combat xeex moom dina ci am. waaye seen ci dóor mu daal. ñoom ñaar ñëpp dañuy xeex ku ci am bunt daw jàpp. waaye dinañ xeex. xeex mënu cee ñàkk Baye Djily xam nga ne fecc bu la taxee jéggi dex boo yeggee bul xaar ku la tàcc. ñëwal rek ne ca ñaar ñi dañuy ñëw rek nekk ci Baye Djily arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ. arbitre bi sifflé na mbokk yi ndaysaan il est 19 heures 38 minutes ndaysaan dimanche le 10 octobre 2021 arène nationale rent DKR production Eumeu Sène Kalmu xeex ba commencé nañ dinañ xeex door mu daan mbaa du am Kalmu Ndour Baye Djil gis nga li ma la wax ñi a ñëw rek ne ca dal na amul round d'observation amu ca dal na dañuy xeex maa dóor ci bëre lay jeexee de Baye Djil ci bëre lay waaye ma seen tel naa joxe wet gi njool kenn njool kenn ko jox wet Baye Djil wet la njool kenn ko jox wet Baye Djil du bëree wet nanguwuma lii mu def wet bi daa neex su doon maay moom tam naan ko génn ca mu ngi daw Kalmu Ndour fi mu ko jàpp sori na dina ko daan Eumeu Sène daan na Calme Ndour Eumeu Sène Junior daan na Calme Ndour Eumeu Sène daan na Calme Ndour Eumeu Sène daan na ko ndeysaan Calme da doon forcer Eumeu Sène daan ko oh Eumeu daan